الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وصفيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم يقول جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu wàcceel alquraanul karim leeral ci bépp mbir alquran joojee nekk it luy saafara jàngoroy xol yi ñu ngi seede ne yàlla moom amul kenn ku yooyu jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeelul ñu koy bokkaale ak kenn ñuy seede ne suñu sang muhammad alayhi salaatu wassalaam jaamam la ndawam la tànneefam la xaritam la soppeem la yàlla na ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal fi leeg guddi yëg bëccëg yëg ngi awante mbokk yi suñu xutbay tey ginnaaw bi ñu dénkee suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala nim ñu ko waxee ci alquranul karim yàlla mu ni ee yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rikk nag bu leen dellu si waat ci man lu dul da ngeen a wammat doon ay jullit suñu xutba yi tey mbokk yi dañ koy sof ci suñu xutba bi weesu mu nekkoon ca am wulaat fi suurati Qaaf ay jàngat yu ñuy jàngatee ci saar wii di suuratu qaaf ginnaaw bi ñu xamlee ni ñu bëri ci saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo mokkaloon saar wii di suuratu qaaf ci làmmiñu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te li taxoon ñu mokkal ko mooy ni alayhi salaatu wa salaam julli ajjuma yépp bari na ci lum daan jàng saar wii di suuratu qaaf wante ndax dafa nekkoon rek lum daan jàng rek wante dafa nekkoon ay fàttali yum daan fàttali jullit ni ci seeni wareef seen diggante seen borom subhanahu wa taala moo tax suñu xutba bi dañuy ci indi ay leeral ci ni saar wi di surtu qaaf laysa fiha ardun li ahdaati yawm alqiyamati axasa bal hiya xutatu xayaatin nekkul lépp lu alayhi salaatu wasalaam daan jàng wante da ko doon jàngalee nit ki ni dafa war a planifier ak dundam ci kaw suuf planification yooyu mbokk yi bi ci jiitu mooy nit ki dafa war a planifier ak dundam ci imaanu bil baaxi wal xisaab fala gaflata wala shakka da daan fàttali moom alayhi salaatu wasalaam jullit ñi ni saa wii de li ci borom bi subhanahu wa taala di fàttali mooy ngeen di planifier seen dund ci ni dekki day am ak it xisaab day am bu ñu dekkee ku nekk ci ñoom dañ koy rete ngir ñu bañ a sàggan wala ñuy sikki sàkka ci yooyu lay mbir kon jullit bi dafa war a planifier ak dundam ci loolu ñaareel bi ci planification yi mooy taamul fi ayaati alkawn li yazdaadu al iman yaqinan mooy doomu aadama bi di bàyyi xelam ci li ko wër ci li yàlla sàkk ci kawn bi ndax lii di asamaan yàlla mu ngi ko def mu nekk juróom-ñaar yu tegaloo te yàlla mu ngi fàttali ci saar bi ni amul fenn fuñ ci gis fu xotteeku boo demee ci suuratul mulk borom bi subhanahu wa taala mu ngi fàttaliwaat foofu ci ni mu bindee asamaan si tabaraka alladi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawt walxayaat liyabluwakum ayukum axsanu amala wa huwa alazizu alghafur mu ñëw ci asamaan si mu ni wa laqad zayyana samaa dunya bi masabiha wa jacalnaha rujuman lishayatin yàlla ni mu bindee asamaan si def ko mu nekk ay tabaqaat mu def ci boo xoolee guddi def ci ay biddéew biddéew yoo xam ne boo ko xool dafay rafet lool ci ni ko yàlla sàkki wante du rek ay biddéew yuy niit wante yàlla da koo def mu nekk rujuman li shayatin shaytaan yi daan jéeg jinne yi di déglu ci xibaar bi yàlla di wax malaaka yi ci li war a xew ci kaw suuf ngir wax ko buxaaba yi ñiy liggéey ci wàllum njabar ak ay seet ñooñu biddéew yooyu ay jum-juma la ci ñoom ay misal la ci ñoom ngir ñuy bañ di yëg di déglu borom bi subhanahu wa taala ca la muy xibaar malaaka yi moo tax alayhi salatu wasalaam dankaa ko waat ñi nga xam ne dañuy dem ci njibarkat yooyu ak seetkat yooyu ni man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad képp koo xamante ne dem nga ci ñooñu jinne yi di indi ay xibaar di leen wax ne diw mii de nangam diw mii de nangam diw mii de nangam nee na ku dem ci ñoom ba déglu leen ba dëggal ca lañ wax nee na weddi nga li ñu wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquranul karim te am mu laa di bari na mbokk yi boo xoolee ba ci garab yi yàlla saxal ci kaw suuf garab bi li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci nit ki ni mu war a sàmmoo bu baax di jëmbat garab ak di ko nemmeeku di ko saytu ndax garab yi ñoo ñuy jox ñun doomu aadama yi oxygène bi ñu war a dundee ñun doomu aadama yi di leen delloo gaz carbonique bi nga xamante ni moom mooy jóge ci ñun kon yàlla defarul dara ci kaw suuf ci hasard moo tax alayhi salaatu wasalaam yahuudu bani nadir bi ñu ñëwee ni ah yonent bii de dafa ñëw di dagg garab yi ndax ñoom embargo bi ñu leen embargo woon wër leen encercler leen dañoo amoon benn forteresse bu ñu toog mooy garabu tàndarma yi leen tiimoon ak garab yi leen tiimoon nga xamante ne daanaka du ñu yëg embargo bi yàlla joxe ndigal ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam daggal garab yi ñu ne yonente bi tooñ dem bay dagg ay garab ndax xam nañ ni garab dafa bokk ci li ñu war a protéger ci li yàlla bind yàlla soog a àddu nag défendre yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu mu jëf mu ni maa qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah garab yi alayhi salatu wasalam ndigal saxaaba yi ñu koy dagg loolu ci ndigalu yàlla la bokk na ci li yonente sallallahu alayhi wasallam daan digle sax ci bu ñuy dem di xare ni bu ngeen demee bu ngeen dagg ay garab yooyu yëpp te amul daal yoo xam ne doomu aadama bi da ci war di xalaat ci ni yàlla bindee univers bi kon saa bi dafa bëgg dafa bokk ci lim lay fàttali yow doomu aadama ngay bàyyi xel ci li la wër ni yàlla mi ngi sàkk kenn dong la mooy allah subhanahu wa taala moom mooy ki am kàttanu bind yooyu waaye mooy ki am kàttanu ëllëg mu dekkil la yowmal qiyaamati ngir mu xisaab la ñetteel bi ci ba tey te amulaat yi wala planification yi surtout qaaf di jàngale mooy zikrul mawt fàttali ko dee xatta la yughfiluha al amalul kaasif di bari looy fàttaliku lii di al mawt yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko diglee ni aksiru min zikri hadmi lazzaat dee leen bari lu ngeen di fàttaliku liy dog bànneex mbokk yi bu ngeen xoolee ci jamono yi ñuy dund ci gën a récent ba ci bërki démb yaa ngi dégg journaliste bu def émission wala information sept heures pare ci information bi war a ñëwaat ci diggante bi ci la faatu kooku xool leen fa mu jóge ca këram njaboot gam fa bàyyi soxna sa njaboot ba xool leen laataa rek mu dugg ci biir plateau vigile nuyoo yéeg ci kaw ba ki ko doon defal maquillage laataa mun toog ci plateau bi similaak saala ñu ni kooku noonu de sañ comme na faatu noonu ab jàngale la boo xam ne yoon saa saam jàngale woon na ko bu yàgg ci ak siru min zikri hadimi la baat bari leen lu ngeen di fàttali li nga xam ne mooy liy dog bànnee bokk na ci lim lay dimbalee mbokk yi mooy ni al imaanu bi yawmil axir gëm bi nga war a gëm lii di bisu mujj ba yow sa bis bu mujj yow xamaguloo ko yow bis boobu noonu yàlla di wax mooy bu àddina bi jeex waaye yow sa bis bu mujj amul kenn ku xam ni man ëllëg lay faat wala fii lay faat kon bari loo koy fàttaliku dina tax ba ngay defaraat sa doxin defaraat sa li ngay waxee defaraat sa jëflante ak doomu aadama ñeenteel bi ci planification bi nga xamante ni saar bi mu ngi koy jàngal mooy surtu xaaf mooy muraqabatul qawl wal amal li anna kulla shay'in maktub di planifier sag wax liñ naan sakkanal say kaddu ab jullit dafaroo sakkanal ay kaddoom ba lépp looy addu rek luy jur ak yiw la moom la alayhi salaatu wasalaam wax ni man kaana yuminu billahi wa yawmil axir képp koo xamante ne gëm nga yàlla al iman billahi wa yawmil axir ak bis bu mujj wa nee na fal yaqul soo demee day wax rek na nekk xayran ak yiw aw li yes mu tag na kon jullit moom ay waxam war naa gàtt war naa néew ci ne lépp lu muy wax rek lu koy jural ak njëriñ la ndax lépp loo yëkkati ci kàddu rek maa yalfuzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid loolu la saa bi jàngale lépp lu waay wax muy lu baax wala safaan malaaka yi ñu ngi koy bind te yawmal qiyaamati yàlla moom ñuy xamal ci sa séeré jëfee nii lépp loo xamante ni doomu aadama waxoon na ko wala jëf ko ko rek di ko fekk fa wajadu ma amilu xaadira wala yazlimu rabbuka ahada yàlla mu ne lépp dafa waay jëf di nga ko fekk sa séeré jëf te yàlla nekkul kuy toon ba kenn ci mbindeef yi juróomeel bi ci di doomu aadama bi di jëlee ci saa bi di sootu faaf war koo planifier dundam mooy al istiadaadu li liqaa illahi bi tawbati wa taa mooy waajal sa bopp ci daje bi nga war a dajeeg suñu borom subhanahu wa taala ëllëg lu dul ñàkk la amul kenn yoon saa salaam amul kenn kuy yëkkati jéego yowmal xiyam teg lu dul dañ koo laaj ay laaj kon jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala loolu lu mun la ñàkk la ci suñu dund buñ faatoo jullit bi ne da ko war a waajal ci planifier dundam ba lépp lu muy def mu nekk lu muy xam ci lu koy jural yiw ngir muy tase borom bi subhanahu wa taala mu ni bokk nag nag ci ni nga koy waajalee mooy ak tawba mooy nga tuub di bari looy tuub di dellu ci yàlla tuub moom boo koy def mooy da nga ni gees sa càmmoñ xool ci journée bi déjà lan laa fi def loo xamante ni lu neexul yàlla la nga profité nga tuub ko ndax yàlla mu ne maa ngi tàllal samay loxo sama jaam ci bëccëg ci képp koo xamante ni juum na ndax ñoom ay xatta um nañu juumkat lay ngir képp ku ma ci tàllal loxo tuub rek ma jéggal noonu laay tàllalee samay loxo man allah subhanahu wa taala ci guddi gi sama jaam yi nga xam te ne lañ ma doon tooñ ñu jéggalu ma ma jéggal leen kon ak tuub tuub mooy li nga xam ne bu weesu jaam yàlla mu ngi koy wax yonent saa saa ne ko qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allah yaghfiru dunuba jamia mu ni yow Muhammad waxal sama jaam yi kon tuub gi faw nga delloowaat sa bopp ci njaam ba yàlla reconnaître la sa njaam ginnaaw gi nag yàlla mu ne yoon saa salaam waxal sama jaam ñooñu nga xamante ni ñoom dem nañ ba jàpp ni li ñu def ci ay bàkkaar du ma leen ko jéggal nee leen man yàlla romb naa ko ndax man kuy jéggale bàkkaar yépp laa waaye mu nekk tawbatan nasuuxa tub bu sell boo xamante ni comme ni ko borom lax den jànge an nadamu ala ma faat wa niyatu an laa yahuda ila danbin fi ma baqiya min umri mooy nga tuub rëcc li nga defoon waaye dogu ni lii dootuma ko defati des sama dund fii ba sama dund gi di jeex aqul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi suñu taxawaay ñaareel ba tey ci ta'ammulaat ci suratul Qaaf ñu tolloon ci xutta yi planification bi ci yàlla subhanahu wa taala di jàngale ci ni doomu aadama ni mu war a planifier ak dundam ngir waajal ko daje bi ñu war a daje suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw yooyu les planification ana lan mooy di des nag ci jaam bi ci gëm bi mu war a gëm dekk saa bi di ko jàngale ak it gëm bi mu war a gëm kattanu borom bi subhanahu wa taala ci lépp lu mu bëgg lépp lu mu namm mën na ko am mën na ko amal ak it gëm bi mu war a gëm lii di sakratul mawt sukuraatu dee saar bi indi ko nga war ko planifier ci sa dund di ko bàyyi xel ak it gëm bi nga war a gëm ni fii ñu dund dina dem ba bis bu mujj ba malaaka bi su walee bufte ba képp ku desoon ci kaw suuf faatu ngay def ba kenn dootu fi desaat ginnaaw bi it nga war a gëm alxasr ni ginnaaw loolu yàlla daf ñuy dekkilaat ginnaaw loolu sar bi it jàngal ñu alxisaab ni kenn ku ci nekk ëllëg yowmal qiyaam dañ lay régler ak it la mujj mooy saar bi indil ñu ginnaaw bi ñu réglé ba pare yàlla mu ne daf may day fayaate kenn ku nekk dina la fay la nga la nga liggéey yoon ginnaaw te amul laaj yooyu ana lan la saar bi nag lan lañ ci war a def ñun bis njëkk mooy ak tawbatul fawriya mooy ginnaaw bi nga xamante ni saa salaam jàngale na saar bi di ko jàng di ko jàng ba saxaaba yi mokkal ko ci làmmiñam mu doonoon ak fàttali gi mu leen doon fàttali ginnaaw ba mu la fàttale la war a njëkk ci yow moom mooy ak tawbatul fawriya daaw tuub dem ci yàlla balaa li nga xam te ne mooy dee di la dikkal ñaareel bi mooy kasratu zikr dawal gaaw ngay bari looy tudd yàlla te tudd yàlla yi bi ci njëkk moom mooy jàng alquranul karim mooy di bari looy jàng alquranul karim mbokk yi ab jullit dafa war a togg boppam ci ni bis bu set alquran bi war naa cee jël ak dox di ko jàng ni ngay jëlee sa kurus respecté say say wird ni wird yi dama koo war di sasoo ci tuub ci yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina si yawmul jumaa di tudd yàlla di di di tuub di jéggul di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sabbal yàlla noonu nga waree am dog ci alquranul karim chaque jour ngay ubbi di jàng alquran moo xam page rek ngay jàng tëj ko moo xam xaaju page rek ngay jàng tëj ko moo xam lan ca mokkal bu dee suuratul fatiha kese nga ci mokkal sax nga tijj ko lii kon ko jàng loolu dafa war a bokk ci planification doomu aadama bi ci saar bi mu ngay jàng fa zakir bi la quran la yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu bokk ba tey ci li jullit bi war a gaaw jàngee ko ci saar bi te di ko jëfee mooy xifzul lisaan wattu suñu làmmiñ yi ci lépp looy wax rek nga xam lu mu doon mbokk yi fii doomu aadama bi di di tàmbalee ci société di tàmbalee muy ci biir néegu sëy bu ñu boolee ku góor ki ak ku jigéen ki ci maye leen ci jàkk ji dafa bokk ci xutbatun nikaax yi mooy xutba bi ñuy fàttali ñi teew ci wàll wu góor wi ak ñi teew ci wàll wu jigéen wi te lii jaar bi sax mooy ñoom ñaar ñi ñu may ñu teew déglu li ñu leen di xutba mooy dañ leen dékk ni yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما dafa bokk ci dénkaan yi ñu leen di dénk ci biir néegu sëy bi ni lépp lu ngeen di génn ci kaddu rek na nekk kaddu guy defar kaddu gu yiw kaddu gu baax ndax loolu mooy tax société bi tàmbalee fii ci yéen ñi di jur ak yéwalante kenn ku ci nekk di yéene sa moroom ak texe kenn ku nekk di yéene sa moroom lu baax ci tënk li yoon saa salaam wax laa yuminu ahaduhum xatta yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi kenn la ngëmam dul mat lu dul li nga yéene sa bopp loolu nga yéene sa mbokk ci li kon loolu fi société di tàmbalee fa lañ njëkk dénkaane li nga xam te moom la saar bi di jàngale moom mooy wax joo xamante ni wax ju baax la wax juy defar mooy xibsul lisaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee bay wax na nga wax lu baax sa nopp bari lay wax rawatina waxukaay yi ni mu baree moo xam ci Facebook ngay wax moo xam ci WhatsApp ngay wax moo xam ci Instagram ngay wax waxukaay ni mu bëree tasaaroo ci àdduna bi kenn ku ci nekk jàpp ne loo ci bës nga tape ko bind ko mu ngi sa téere jëf loo ci vocal mu ngi sa téere jëf yàlla moom mi ñu sàkk te mu koy wax ci saar bi ni moom moo ñu gën a jege suñu buumu xol nee na wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi daati sudur yàlla mu ni li nga wax discrètement mooy li nga bind moo xam ne ko tafe sa clavier moo xam da nga koo wax sirran wala nga wax ko ca kaw ala nan nee na yooyu yëpp yàlla xam na ko ba xam li nga xam ne moo nekk sa biir xol li nga préparé gul xalaat sax yàlla xam na koo pare moo tax saar bi dañuy jàngal ni doomu aadama bi dafa war a muraqabatullah fi sirri wal ulia mooy nga bàyyi xel sa bopp ci ni moom mi nga xam ne xam na sa loo loo wax ndànk ak loo wax ca kaw ba xam li nga xamante ni xalaatagoo ko ba koy wax kooku war nga koo bàyyi xel te xam ni moom nga war a jàkkaar loolu ëllëg mu réglal ci li nga war a def mbokk yi ñu ngi dëgmal weer bii de weeru koor yàlla nañu fekk ak jàmm sahabatul kiram ñoom bokkoon na seenuk ñaan six mois avant ramadan ñu ñaan yàlla mu fekke loolu lii di weeru koor fekk weeru koor mbokk yi nekkul da ngay bokk fenn moo koy tax a fekke nekkul da ngay am alal moo la koy tax a fekke tawfiqul ilahi yàlla lay sopp mu namm ko mu fekkeloo la weeru koor yàlla ñu yàlla fekkeloo weeru koor te alayhi salaatu wasalaam li mu ci jàngale mooy weeru koor dañ koy séntu yàlla mu ni ko yasaluunaka ani ahilla dinañ la laal lu jëm ci wàllum weer nee neen qul hiya mawaqitu linnaas weer dañ koy xam ci ni ngay toppee weer di jullit muy weeru bi ñuy wax weeru olof bu weeru olof weeru jullit ñi la kooku jullit bi dafa war a topp ba bu ko gisee wala mu dégg ku maandu ku ni ko ah weer yi feeñ na mu fas yéene ngir dugg ci weer woowu noonu weeru koor buñ ciy dugg dañ koy tàmbale ak yéene nay dugg ci weer wi woo ko ba mu jeex bokk na ci ponk yi jiitu boo demee nag ba am ngant ci diggante bi moo xam da nga feebar wala jigéen mu am ngant kooku boo demee bay wooraat da nga yeesalaat sa sa sa yéene ci dugg bi ngay dugg ci weeru koor bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale si nag ni weeru koor muy weer bi nga xam ne moom la yàlla farataal ci ñun jullit bi dafa bokk ci sunna yi koor gi mooy di xëdd xëdd am na ñoo xam ne mbëstan la ñuy def mais mbëstan bokkul ak sunna bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale xëdd mooy nga bàyyi ba ñuy waaja salaatu la nga cay lekk loolu la ñuy wax xëdd mooy moo moo la wax ne tasaxaru day leen xëdd ay na fi suxuur baraka nee na xëdd am na barke alayhi salaatu wasalaam tàndarma la daan xëddee te léegi science dem na ba découvrir ni tàndarma boo ci lekkee boo demee ba ci journée bi sa réserve yi nga xamante ni li nga lekkoon moo xam loo mën a xëddee mu dem ba loolu génn ci yow nee na sa cellule yi nga yi nga xam ne mooy li gën a tuuti sa organisme ci réserve tendrement yooyu noonu moom la ñuy jël ba tax na yow mën nga kaa dundee di xëddee ba weeru koor bi jeex te doo jeex doo animé te loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ko bu yàgg science soo ko découvrir tasaxaru fi na fi suxuur baraka noonu la jàngale moom alayhi salatu wasalaam ni bu ngeen demee ba woor ba ndogu di jëf na ngeen toog ngeen tàllal seen loxo ngeen ñaan seen borom ndax nee na am na ñaan boo xam ne yàlla du ko delloo mooy ñaanu ku koor ku woor te léegi fiir gi bari na ci balaa ndogu di jot ñu tegal la kooru lamaraana kooru diw kooru diw kooru diw ay sketch yoo xamante ne daanaka borom kër geeg njaboot gi yëpp fa la ngay tax toog di ko di seeraan ba bañ naan ndogu jot na subhanallah fekk yiw bu rëy romb na la yaa sa njaboot la nga waroon demee ci buxaaba ba ne ko seetal ma wala sama doom ji dama bëgg nga ñaanal ma ko sa doom ji kenn duñ laa jege ci nga ñaanal ko yàlla nangu ko dajaleel sa njaboot ñu jàpp ba sell di waajal ndogu nga toog ñaanal ndoog ñoom ba ngay dégg allahuma la ko sum nga ànd ak ñoom ñaan ak ñoom ñu jël seen tàndarma ndox seen koor lii la alayhi salatu wasalaam jàngale ci jullit bi nu mu war a xëddee ak ni mu war a dogoo ak ñi nga xam ne la war a seetoo weer bi yàlla na yàlla dimbali defal ñu kattan tawfiq ñu fekke weer bi woor ko ko mat sëkk lépp luñ ci mang ci gi yàlla ñu ko yàlla jale moom rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuaxidna in nasina aw axtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله